également ñi ma fekk fii di nuyu waa Sénégal yëpp waslu àq daa mënut ñàkk rek dañuy waslu àq rek ndax dans un pays normal on devait même pas organiser une conférence de presse on ne devait pas mettre la pression pour que ki nga xamante ni mooy le haut commandement fii ordre di jóge ñu war a def seen liggéey ndax bi Karim defee sa déclaration xamal nit ñi ni dañ leen doon torturé par un commissaire de police automatiquement Dame Mbodj wax na ko léegi mooy dañ ko dafa waroon a futtiku sax moom avant ñu koy futti dem jëbbal boppam justice ne leen man maa ko def te bi ma koy def tuxu ma naanu te très conscient waaye dama leen di fàttali nag ñu dañoo nekk ci dëkk boo xamante ni képp ku fi def acte de terroriste kenn moo la ko defloo muy le seul et unique terroriste le président Macky Sall képp ku fi def yëfu nervi mooy maanaam di ndulliwaate le premier nervi néocolonial moo la ko defloo muy le président de la république Macky Sall waaye damay wax tey ak ki nga xamante ni peut-être am na lu ko daam rafraîchir na ko la mémoire Macky Sall n'est pas éternel Macky Sall il lui reste juste ans donc lu waay di def na ko xool lépp lu waay di def Macky sàll di la ko defloo loo na nga ko xool bu baax a baax a baax a baax réew mi ñun ñoo fi des te ñun yàlla daf ñoo nattoo déj maanaam déj mooy toog Sénégal fii duñ fi génn duñ fi bouger ñun bokkuñu ci tàppet yi nga xamante ni dañ ne Sénégal du dem da ngay sonal sa bopp sénégalais jarut a xeexal ñun déjà dañoo gëm ni Sénégal moo jiitu waaye juste que dañoo amagul capitaine bato bu baax rek waaye bato bu bees tàq la bato la boo xamante ni euh, moo mën ci bato yi waaye nag fas lu mu mën a mën a daw te jooke ba koy dawal aayut fas wa ndàdd rek lay jël looloo ñu daal dañoo am ay jokke yu nul waaye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam en deux mille vingt quatre dinañu séparer wu ak ñoom ci loolu dafa may permettre rek ma inviter tous les sénégalais ñu xam ni que ni am na benn leader bu fi mës wax mortal combat gars yi jàppee ko mortal combat ay dóorante nous ne sommes pas des sauvages nous ne sommes pas sérieusement ñun xamuñu dóorante on est très pacifique mais quand on dit mortal bi muy wax mortal combat c'était juste. pour faire comprendre au Sénégalais que ni Macky Sall buy dem retraite il va partir avec tous ses nullards et toute cette classe politique pourrie mooy ñoom Pa Niasse ki et cetera ñoom Idrissa Seck ki jàppal bàyyi consort donc mu war a jaral képp kuy sénégalais nga futti ku xar sa tànk tubéy xam ni lii nii je vais participer ku ku participer ci départu Macky Sall bi di ñëw participer nga bu la neexee taxawal nga ne. yaag bal joojoo mi taxawoon nekk porteur de pancarte yow ak ñi mës a taxaw ñépp nga xamante ni Sénégal day dem ci kanam bu la neexee nga ne yéen a bokk maanaam yéen a bokk àtte yéen bokk li ngeen def bi c'est c'est c'est mooy mooy mooy mooy li ñu naan tournant décisif kon na jaral képp kuy sénégalais et j'invite tout le monde journaliste bu waxtu tax teg caméra yi jotee nañ teg caméra bu ñu filmé dara bu nekk ñun kese suñu biir ñu ni neen ñu régler suñu problème parce que le problème il faut qu'on le règle parce que nous avons affaire avec koo xamante ni euh, <coughs> ñëpp xam nañ ko ko tey kenn dootu ko présenté lenn kese la gëm ci àdduna muy rapport de force rapport de force la gëm te ku mel noonu parce que fii des fois da ngay des fois doo comprendre mais ku mel ni man benn kër boo xamante ni il écoute pas bu xamee ni lii mooy objectif am xoolul ku ko ci ŋaañu xoolul ku ko ci tagg day dem jubal ci objectif moom lu mu fa fekk jël no kooku moom ngay wax ci moom c'est peine perdue alors du coup koo xamante ni euh, euh, fii d'habitude dañuy fekk kuy jooy ñu naan ko noppil te war a dem ca koy dóore ñu ne ko bàyyil dóor yi mais on ne le fait pas des fois doo comprendre gars yi mais juste di leen wax ni ne les écoutez pas notre objectif c'est de faire partir Macky Sall avec toute la classe politique pourrie bi nga xamante ni moom la fi nekkandaloon depuis cinq ans parce que ko bu ñu naxante Macky Sall ay bu ku bees laa dugg na fi c'est pas vrai je suis désolé ñoom ñëpp ils étaient là depuis Senghor depuis les indépendances ñoom ñëpp ku ci nekk occupé nga poste de responsabilité kon c'est pas aujourd'hui qu'on veut nous vendre de de de, de du sang neuf amu ci kenn ku ci am deret ju bees te du du ñuy du ñuy buñ mais la preuve keroog dañu nekk prison gi am ben benn benn activiste bu jóg toog ba mu yàgg ma ne ko lan la mu ne man j'ai comme l'impression que ay étranger lañ fi indi ñu ñuy jiite ma ne ko ah mu ne ma parce que ñi ñuy jiite yoruñu suñu jikko parce que tey jii mënoon nañu fekk ci leneen ñi nga xamante ni ils ont les possibilité pour faire au moins bouger ce pays gis fi concurrence bi toll fi compétition bi toll ñu fexe ñu am na yu yoo xam ne dafa xeew yi ñu génn ci mais ñii chaque jour ñu ngi ñuy dugal ci loo xamante ni moo ñuy tardeel ma ne ko génération bu nekk yow yaay libérer sa askan. ma ne ko il faut que ñu nangu leen man de personnellement Serigne Touba Khadim Rasoul man nangu naa ni moom a gën parce que jaamu na yàlla loo xamante ni pepp suuf mënu ma ko jaamu yàlla alaaji Malick nangu naa ni moom a gën Cheikh Ibrahim nangu naa ni moom a gën maam Limaamu Laay et cetera et cetera ñooñu ñëpp nangu naa ni man ñoom a gën mais ñooñu ils se sont privés de bànneex le le plus petit plaisir muy xasanu amul kenn ku ko ci xam soo leen laa buñ buñ ñëwaatoon tey ci àdduna nga laaj leen lan mooy bànneex mënuñ la ko wax ñooñu ils se sont sacrifiés ñooñu dañu joxe lépp li nga xamante ni bànneex pour tey ñu ñu mën a toog ci jàmm ak salaam kon vraiment il faut être égoïste il faut vraiment être égoïste pour en priver à nos enfants il faut que nit ñi bàyyi wéy combat bi pour wéy ñuy jaruñu xeexal on va se battre pour libérer nos enfants. On ne va pas accepter que de benn benn benn minorité hypothéquée hypothéquée l'avenir de nos enfants. Les politiques et leurs militants, ils ne font pas 200 000. Alors pourquoi les 17 millions Sénégalais vont accepter que la plus petite minorité di hypothéquer li nga xamante ni c'est l'avenir de nos enfants. Ils n'ont rien, euh, absolument rien demandé. Nos enfants n'ont rien demandé. ñun ñoo leen fi indi ñun ñoo dem takkante séyante ba indi leen fi kon il est de notre devoir de se battre aujourd'hui ce n'est plus un choix mais c'est une obligation de libérer ce peuple et je veux que képp kuy sénégalais nga def loolu ci sa bopp ñu ngi woote ci appel pour la libération du Sénégal le commissaire Masserigne mieux euh, Masserigne Faye seetal yàlla nga nekk patriote nga nekk un citoyen nga dem wuyu ji ndax boo ko deful tey di ko def suba ñun nag duñu tàyyi dina dinañu interpeller dinañ waslu àq dinañu dimbali def ko yàlla tax su fekkee mën ko ko def léegi nga dem lu la justice teg nga xam ni lii yow yaa ko liggéey euh, topp nga benn benn nervi mu def loola yëfu nervi donc euh, il faut l'assumer wuyu jil tey balaa ngaa wuyu ji suba te wuyu ji tey mooy gën a yeeg mooy gën a sedd wuyu ji suba jàngeen jëf wasalaam. Non, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de questions. Tout a été dit clairement.